facture hôtel. Mhm. daal di dese préparé ñëw yónnee fi ngay jub si ne maa ngi ñëw waxtu sàngam. Mhm. boo ñëwul yow yaa koy expliqué nit ñi mais man awma explication. d' accord d' accord léegi li xew ci kaam par euh, conseil constitutionnel. Mhm. ñu bari dañu ne dañ ko tooñ. parce que comme renoncé woon na ci candidature am euh, dañ ko tooñ. dafa waroon nekk candidat est ce que da ngay partagé avis boobu ak ñuy wax loolu. waaw ah, bi ma ciy wax kenn waxu ci. bi ci Moussa Diop di jëkk wax. di génne article boo xam ne bi dafa concerné ñi nga xam ne dañu am benn parent bu nekk français te ñoom juddoowuñu France mhm. juddoowuñu France bi mu waxee ba miir ba pare dama ko ne da nga liirul taxi bi liiral mu ne déjà un enfant qui n'est pas en France ma ne ngoonte moon Karim bokk ci Karim est né en France mhm. ca laa waxee ne Karim Wade ci situation dafa war a déposé ci fi mu nekk renonciation à national nationalité française du demande. Mm-hmm. ñi ko tudd demande du demande dafa mooy dafay wax ne bàyyi naa. Mm-hmm. mooy boo demee tey deux ans. Mm-hmm. nga teg sa micro ak yëpp ne ay Aïdara bàyyi naa. jël sa bagage ak sa der bi nga fa am dem mu ne la salaire bi nga ne ko bàyyi naa koy dem nga. d'accord kooku bàyyi na. donc renonciation boobu mu def nag foofu. dañ ko fay jox benn këyit. ne ko këyit bi téye ko parce que du fii dañ koy defee dañ koy yónnee France. Hmm. mais boo ko téyee juróom benn weer. te décret bi constaté na yow ameeloo ñu dara. Hmm. France. Hmm. sa acte d'allégeance jeex na bu boobaa sa nationalité française yaa ngi jàpp ne yaa ngi ko ñàkk bés bi nga ko déposé Doha. mooy Karim Wade. conseil constitutionnel daf ko tooñ. ñaareel bi. dina dinañu condamné nit kaso war a ko rey biñ koy rey ñu ñëw seet ne kii kan dañ ko war a rey tey bu fekkee waa ji Assane ak Ousseynou la mhm. Ousseynou ñëw ne ki ngeen di rey sama seex la du moom man la booba ki jot ki jot pour rey day taxaw conseil conseil bi ñu téyee kayitu Karim mhm. di ko seet booba temps candidature arrêté guñ ko mhm. ñu yor décret bu ne nekkatul ci ñun ñoo ñu ne ko yow nekkoon ko daaw jéeg moo lay wane donc conseil constitutionnel am na lu fa xew. Hmm. lu tax loolu am. d'accord mais xaw ma naan la. Hmm. mais le conseil constitutionnel a fauté loolu xaw ma naan la. Hmm. ensuite conseil constitutionnel euh, bañ ko changé 2016 ba yóbbu ko juróom-ñaar. la jafee téye. Ah waaw bu la bu la kenn tax réew suñu réew yi ni ñu ko yore président de la dafa am benn doole boo xam ne bii. dafa am nu ñu koy xoolee dafa am sac dafa yomb yomb pour mu am dara. Hmm. professeur Ismaïla Madior Dior expliqué na ko ci problème mu candidature yi d'ailleurs dafa bind moom ne conseil constitutionnel xarit la ak allié allié xaw ma mooy farandoo. Hmm. xarit la ak farandoo la ak président de la république nekk en exercice waaw conseil conseil bu fekkee ne noonu lañ ko noonu lañ ko tëggee. Hmm. ci li jàngalekat yi wax. ba nga xam ne président de la République Macky Sall am na lu ko ca bett mooy juróom-ñaar ya mu faloon. Mhm. am na lu ko ci rëcc. Mhm. te amul kenn nag ñoom ñi falu nii. Mhm. ah oui dina am benn regard bu ñu am ci tribunal bu nekk ak ña ñuy fal dinañ leen xool façon boo xam ne wala di wax ak wax boo xam ne ëllëg bu ñu soxlaa mu ñu faj ko. d'accord waaw duñ leen ne faj leen nangam. mais bu ñu xamee seen soxla faj ko. loolu day am. mënul deñ. d'accord affaire nit la. d' accord waaw ñëpp du ñu Omar. Hmm. Sina Omar. <laughs> Hmm. ñëpp ñu moom. dëgg la waaw dëgg la merci doyen léegi nag ñu jeexale actualité bi euh, régime bi fi nekk gis nga euh, li ñu évoqué mooy la publication des rapports loolu est ce que est ce que lan la lay inspiré da nga yaakaar lu mën a jur coow la ci réew mi wala lu baax la. Ah, amul amul problème xam nga. Hmm. xam nga loolu xam nga ban problème la. mooy dañu war a juri tisbaar ak takkusaan ak timis. bu ko yàlla waxee yàgg na. te commencement ba dañu ko war moom kañ xanaa dañuy wax kañ ba waa ji daawul julli di julli léegi. moo fi nekk mais rapport yi moom ala kuli àllin te mën woon demee nii même bu fekkoon ne rapport dañ ko doon nëbb te ñoom ñu bëgg lépp feeñ. Hmm. ñoom bu ñëwee dañ ko war a muri. Hmm. loolu amul njaaxle. set ñoom ci si ñoom. Hmm. ordre normal des choses la. ordre normal des choses la pour que dootuñu fal nit te amul appel d'offre. bind ci wala ne am na poste sangam lañ koy def Euh, amul amul euh, amul ñaaxle euh, si ñun que dañu war a transparent mm-hmm. amul ñaaxle si ñun que fonds politique dañ ko war a xam dañ ko war a wone dañ ko war a seet amul ñaaxle si ñun que ku nekk da nga war def nangam ak nangam amul ñoom dootuñu def lu ñu jaaxal parce que lépp ñoom wax nañu ko. Mm-hmm. donc décision yi mu jël. Mm-hmm. ne na ko rapport yi fekk si. mais c' est une chose c' est une bonne chose parce que mooy li war a am. nit nag bu defee li mu waram nag ci jamono yi li war a def dañ lay aussi sant. Mhm. parce que nit a nga war a def lu mu war a def te defu ko. wante mhm. bon dañ leen di sant di leen de. donc c'est à la li ci des. Mhm. mooy li ci des ñi nga xam ne wax nañu affaire Mamour Diallo. wax nañu danga wax nañu danga mais du ñoom rek. Mamour Diallo 94 milliards 200 milliards yoo xam ne yi créé jot na ko mu ngi na ba léegi kenn waxu ci dara dafa bari donc loolu yëpp. si kanam may ñu gudd fan. te li baax ñu tàccu mhm. mais li nga xam ne war nañ ko def te ñu diggaate woon ko mhm. boobaa ñu teg ci baaraam fàttali leen ko dëgg la am nañ temps encore pour suivre leen waaw d' accord jërëjëf doyen kontaan nañu ci dalal bi nga ñu dalal ñu bàyyi la nag xëy na boo amee kàddu gu mujj ndax yow sa expérience macha allah euh, réew mi de ko soxla tey boo doon dénk sénégalais yi dara pour pour tàggoo lan lay doon waaw li li ma ci mën wax daal mooy li nga xam ne moom moom la ñuy jël yenn saa yi def ko postulaté du demee noonu hmm. xool benn nekk réew mi dañ la soxla réew mi euh, dafa am ay compartiment ñii dañuy bëgg A ñi bëgg B. wala fii dafa ñi dem gàmm ñii gàmmoog ñii ras dem bokkuñu. Hmm. Euh, du fépp aussi lañuy terale nit jox ko cër du fépp. Euh, teral nit cër mu ngi commencé d' abord ci ñi nga maaseel. Hmm. ñi nga àndal. te loolu mu ngi commencé disparaître en tout cas suñu parti moom noonu lay dundee temps yi mu ngi dund ci loo xam ne lii ay nit yoo xam ne yii dañu am lu ñu jox parti bi defal ko ko ci seen bakkan ci seen cër ci seen deret ci seen euh, xaalis. Mm-hmm. ba pare tey ñu bëgg leen beddi ci loo xam ne li kenn xamul lan la gis naa ci bi cas ci gën a fraîche. gi ci bën a gi mm-hmm. bi gën a ga bi gën a teew ni man la ko wax mm-hmm. mooy am na benn xale bu jigéen bu tudd bu dëkk fële dans le Saloum dañu ko boo xam ne bii militant partie bi la boo xam ne bii moo koy xalaat sax ci jafe-jafe yi mu am ci xeex. Hmm. pour que Karim génn kaso. bu ma yëgee ne benn nit dóor na ko bantu almet. Hmm. te nekk ci parti bi te élif ko dinaa dinaa jaaxle. Hmm. parce que mérité loolu. démb woote nañu réunion mu ñëw réunion. ñu ne ko doo dugg mhm. euh, loolu du du sat te ku ko def xale def ko mag mhm. mu wootewul ci cër bi ngeen di wootee mais li ma jàpp daal te jàpp ko de jàpp ko àndu xale rek baaxul bu mhm. amul mag àndu mag rek du sori te dootul gaaw ndax tànk yi dafay diis donc euh, jeune génération bi li ma leen di wax mooy d'abord juste hmm. am yar am teggin respecter seen ay kilifa aada ak seen kilifa kër ak seen kilifa l'école hmm. muy benn ñëpp nag laa ko boole mais bu dee suñu parti li ma leen di wax ñaar képp nag ku nekk ci PDS nga nekk fa mag nga nekk fa xale nga kontaan ak nga bañ a kontaan maa ngi lay yëgal ñetti yëf nga fàtte ko sax nga fàttali ko il nous faut être digne mm-hmm. dignité mm-hmm. ñëpp mënuñu ànd benn boor ñu bokk ndey ak bàyyi faruñu gis nga ko léegi sama kër mm-hmm. loolu tey nga ko xam nga su ay sët yoo xam ne yii gis nga waa PDS tey ni ñu sonne fii. coono bi ñuy sonni fii lañuy sonni feneen. ah donc loolu ñu joxe dignité ñu juste. Mhm. juste mooy nit koo xam ne ki day àtte dëgg. dëgg du wax ne lii mooy dëgg rek mais fekk dëgg ñuy laajte nga noppi ji. Mhm. fen la. Mhm. fraternité moo ñu nekk ay frères et sœurs. frère nag doo jël lu metti teg ko ko rek parce que farol ak yow ensuite ku nekk yem ci li nga xam ne moom lañ la sant bañ a def lu la santewul benn laa ciy fàttali nag tëje ko ko mm-hmm. damay fàttali waa PDS ne leen parti démocratique sénégalais benn nit moo ko ilif muy Ablaye Wade mm-hmm. yëguguma ku mu ko jox mhm. ci ndono ci politique ku mu ko jox ci ndono ci deret te bu ko doon joxe ci ndono ci deret dina am ñu ko bañ